très bien léegi ñu tëj parenthèse boobu. li des ci temps bi bariwul. Euh, lan ngay wax ci màggalu deux mille vingt et un ak euh, Soxna Aida mi nga xam ne macha allah. non bu ñu wax non dañuy laaj question. question la rek waaw mais question la. non parce que màggal gi yow murit nga Baay Faal nga. waaw d'accord waykat nga. waaw d'accord politicien nga xam nga lan laa bëgg ñu wax ko ci màggal gi. Mhm. dama bëgg nga poser ma question lii laa bëgg nga poser ma ko ma tontu ci. waaw mais xam nga dañu la gis yow. Padros sa diggante ak Cheikh Béthio ni mu mel nga yàgg di dawal kóllëre googu yàgg di rafetal kóllëre googu léegi faaw xanaa ca dañu mën a waaw bi léegi dama lay benn affaire Padros xam nga lan moo tax man ma bëgg su may dem émission ma ñëw bu ma ñëwee tey ni mu demee la li mu nekk yow moo tax ma ñëw mais dañu war a toog ñu wax ni lii la war a wax ak lii ak lii ak lii très bien man du ma toog fii di may kenn bëri protocole man seen mun taxaa su taxawee ni sëriñ Saliou Thioune moom laa àndal moom la wane mhm. waa léegi man naa tudd keneen di ko may bës man man Mouride laa sëñ Mountakha mooy xalif général des Mourides. soxna Aida amoo loo wax non dama lu may wax ci ñooñu. bul tudd ma tuddal turu ñooñu. parce que man ki sëñ Mountakha joxoñ hmm. man kooku laa gis. Hmm. est la. Hmm. du ma ñëw fii di wax si turu nit di leen may ay buzz ñu am ay clic ci internet bi. sëñ Mountakha sëñ Saliou ndigal daf ko bañ bañ nañ ko ci dolli ndigal cuun parce que ci ndigal la ne. kooku laay wax waxam mais waxuma waxi ay keneen. est-ce que comprendre beneen bi si topp. xam na laa bëgg nga wax ma ko. mooy Serigne Touba dafa dem ci géej gi jiyaat jaay bakkanam ci lépp pour mbégte sénégalais yi bés bii di bésu màggal mu ne ñëw leen ngeen santale ma sama boroom mooy ñu jàng fa alxuraan jàng fa ay xasida def ay bernde ay nit jël affaire bi bëgg ko soppi folklore di def ko folklore. Mhm. ñii di jël ay kilo or di ko takk. voilà ñii di jël ay folklore si loolu nga war a wax. léegi nag ngoy loolu mooy question yi nga xam ne mooy question waaw dégg nga noonu dinañ ci ñëw mais bu yàkkam ci bu yàkkam ci xam nga lépp dinañ ci ñëw loolu amul sens. waaw léegi defal naa voilà laay wan ma image bi wan ma image bi loolu garaaw bu yàkkam ci image bi non buy daanu nga non non dégg nga daanu ma de daanu ma parce que point par point la boy point par point la léegi euh, euh, euh, ngoy dama ay de waaw defal naa ayoo de ayoo de mënoo aay bëgg na aay léegi maam góor euh, ginnaaw bu ñu jógee ci soxna Aida ak parenthèse bu màggal geeg yooyu gis nga actualité bi nga xam ne moom moo relaté ci réseaux sociaux yi partout mm. donc euh, mu nekk ci toile yi ñëpp moom lañuy ñuy waxtaane muy ngoy ak oram ak fi Sénégal toll ak sunu euh, réew mi ni mu jaxasoowee yow noo ko gisee ak màggal Touba lañ ca woon man sama gis-gis laay wax mm. tey soxna Momi Kébé doomu Njugo la ci milliardaires yi ñu njëkk a tudd Sénégal la bokk moom Ndiouga Kébé mm. doon ay taalibe Sëñ Tuubaa mm. soxna boobu soo ko gisee moom i Kébé ceen bu sew lay takk màggal màggalam màggal la la jotee jël ay ceinture or ay masque or c'est pas normal mais nit ko am dara nga war ko wane Askia sama xarit la mm. mais bu ma amee conseil bu ma koy jox mooy màggalu Tuubaa kenn nekku fa pour di wanewu walla ngay wane li nga am dëkk bi fii am na ay multimilliardaires yi fi nekk te wanewuñu loolu màggal gi sëñ bi dafa wax ni kaa leen ngeen santale ma sama borom na woo jàngkatu alxuraan yi woo jàngkatu xasida yi defar ay bernde invité ay xaritam invité ay nitam jarul wane ay woor bu dee ngénte nag wala mu wane mu defe ko mu woote këram mu wane loolu mais màggalu Tuuba moom dafa wax nii dafa am Askia dafa ni màggalu Tuuba dafa am cérémonie officielle am ay objectif yoo xam ni sëñ bi jël na ko wax ci ci li xew si réseaux sociaux yi saagante yi xaste yi wax yu ñaaw yi leçon yi si nit ñi war a jëlee uh-huh. léegi yooyu yëpp ñu bàyyi ko uh-huh. di waxtaane ceen gu ñu takk ak ceen gu ñu def waa déglul loolu taalibe moom waa léegi moom borom këram askiya dafa génn waa déglu moom moom borom këram askiya dafa génn mu ni sama soxna amul lu dul màggal ak gàmmu kon nag li mu am ñaar yooyu dama ko ci teral lépp lu mu bëgg ma defal ko ko jabar ji nee na ko takki ay or laa bëgg léegi xanaa am na ci droit waa léegi waaw ah. màggal ko ko moom sëñ Tuubaa mais bu dee nii la mën a sant Serigne Touba nag dama lay wax dañuy waxtaan hmm. màggal gi màggalu sëñ Bamba la waaw wala du màggalu sëñ Bamba moom la kay du màggalu sëñ Touba yow sëñ Touba lañ la tuddee mais moom bu dee moom nii la sëñ Touba lañ ma tuddee c'est que booy mënoo booy werante wuñu quoi da nga ma posé question may tontu bismillah man xulóowu ma déedéet xulóowulu voilà hmm. boo ma defee nii ëllëgee du ma ñëw de <laughs> moom mooy teeloo man ñëw parce que émission bi ñi koy seetaan. déedéet walaay xulawul walaay xulawul émission bi. Uh-huh. ñi koy seetaan dafa war a am si ñoom njëriñ. njëriñ bien sûr. parce que tey jii di nga ni maam góor laa invité am ñoo xam dañuy taxaw ni maam góor ah nitu dëgg na si digg bi lay jaar. waaw ñu yëgaleel yëgaleel li may wax yëpp doo mës a dégg maam góor mu wax saaga. déedéet la am. doo ko dégg uh-huh. mais uxu bi laay wax man. Uh-huh. fi gars yi di bañ a teggi seen loxo falaa nag ko ci nit. man Askia suma xarit la. fii laay toog ci télé bi wax ko mm-hmm. mais rafetluwuma loolu mm-hmm. màggal gi màggalu sëñ Bàmba la mm-hmm. y a des yoo xam ne bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki tey xaalis boobu dëggal or neex na trop yooyu yëpp c'est bien mais sa jabar même bu ñëwee ni la dama bëgg a takk cent kilo or nga ne ko takkal bu ndaw su ñu nekkee sama kër nii man ak yow rek ñu wét bu la neexee takkal cent kilo loo koy wane ci ay réseaux sociaux wala di ko wane ci ay internet est-ce que nekkul ne aussi jàppoon ne wonewu bi dañu nekk ci jamono loo am bëgg ko wane mais lii solidarité ga entraide dañ ko jeexal ci dund. xam nga jàppee ko ne noonu lañ foofu lañ toll. xam nga or maanaam loo am rek. xam nga or mais ku ñàkk sa yoon nekku ci. xam nga or hmm. nekkul lu yomb. Hmm. tey bu ñu nekkoon ci dëkk yenn dëkk yi nii dama lay wax rek gars yi mun nañ la woo sax laaj la. Hmm, yow lan ngay liggéey wala fan nga jëlee xaalis bi boo war a mën a jënd lii ci or dafa am loo xam ne il faut nit ñi di ko te suñ ko estimé su ko matul rek yow yaa ca biir ah. dëgg la donc nag nit ñi na la tey jii xam nga lan la ñuy xaar ci mm-hmm. les rajo les télévisions man si sama gis-gis mm-hmm. am na lu bëri loo xam ne tamit yàqu na ñu naan réseaux sociaux yi mais il faut que télé yi parce que télé boo gis am na réseaux réseaux sociaux boppam mm-hmm. est-ce que comprendre mais li mu def nii Sénégal dañu mën a promouvoir pas bu ma dagg ngir yàlla. doo def comme kii. Ah, <laughs> waaw dama lewal Sénégal dañu mën a promouvoir médiocrité. <laughs> Euh. médiocrité oh, bi koy wax yow li ma la xam nga ko. Euh. dañ koy promouvoir. et euh. Sénégal ñi mën a wax dëgg dëggantaan sax yenn saa yi. gars dañ leen daw ñu leen bëgg wane. dama bëgg nga wax ma. tey ji du yoon ci réew mii ñu nekk. ay nit bu ñu xëyee du ñu añ du ñu reer. ay nit di takk kilo or. du yoon. dañ leen ba pare màggalu sëñ Tuubaa yi tey jii. dafa am foo xam ni objectif boo xam ni. Mhm. lan moo tax ñuy def cérémonie officielle. Mhm. léegi léegi ah, ah, benn point xam xam lan moo tax def cérémonie officielle mooy bu ñu ci lii def nañ ci lii def nañ ci mu def nii moom lii mu def nii sëriñ uh-huh. mhm. joxe ay directive très bien léegi ah, baal ma sañoon sénégalais ñu doxale nii ak nii ak nii très ko ñu nga ci or léegi waxtu bi jeex na mais lii mu def nii yow sa gis-gis bu gàtt benn réponse rek directement est-ce que du euh, influencer sénégalais yi pour màggal déwén parce que pratiquement sénégalais yi jigéen ñëpp nee nañu kon màggal nii lañ ko war a defee déwén kat dinaa jaay samay or dinaa def nii dinaa jënd ay or est-ce que influencer wul sénégalais yi. pour dama ni xam nga man dama la jox. point bu gàtt rek non non dama koy wax. Mhm. dama la jox exemple. Mhm. ci soxna Momy Kébé. Mhm. tey jii lii yëpp mën na te mhm. def ko def ko loolu du ay challenge. Mhm. tey jii. kooku xalaat na boppam xalaat keneen message bi may mhm. ñaan. mais challenge lañ ko ñàkk message bi may wax dama koy ñaan Serigne Bass Abdou Khadre. mi nga xam ne moom mooy porte parole. Euh, yoonu Mouride. ak ñi nga xam ne mooy mooy mouvement Touba ca kanam. mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Touba boo solee yére yi gàtt ak boo sàccee. am na am na fa ñooñu. ñu jóg ñu def ay sorties def ay conférence de presse waxtaan ci lii. yéenewuma kenn lu bon nag yéenewuma kenn lu metti mais ñu yedd nit ñi ba nga xam ni mhm. yu mel nii murit yi dinañ ko mën a maytu mhm. parce que murit yi tey jii bu ñuy wax murit mhm. murit mooy ndigal dafa am loo xam ne tey jii solidarité mouridisme dafa dem ba nga xam ne tey ku mag rek yaay nekk xalif ñëpp dina la toogal ci kaw loolu moo war a continuer mais bu ñu demee ba commencé nit ñi di puukare wu di wane wu di wane lu ma am ak lu ma ñàkk dina dem ba indi loo xam ni voilà concurrence lay doon très bien donc voilà jërëjëf maam góor kontaan nañu